toppee ma ko dara ah. Mhm. des fois ñu xulo mhm. dañoo des ñu werante nii. Mhm. li nga def waroo ma woon def li waroo ma nii. ma ne ko tàgguwuma la. parce que man damay jàpp li may def maa ngi koy teg ci yoon. moo tax ma ne ko man tàgguwuma la. dama dama lay yëgal te yenn saa yi léegi ma lay yëgal. damay xool li lay jëmee kanam rek ma def ko boo ci meree boo ci kii karaawul. xam naa la xam naa sa jikko xam naa ne tôt ou tard. su ma tarxiisoon def dara sax. boo ñëwee quelque temps danga may woo. Mhm. ñu waxtaan loolu dara sama rakk nga. Mhm. su ma gisee lu lay lor tamit même yow boo ko camouflé damay génn ne lii du am du du mënta nekk parce que dégg nga ko ci audio yi man leen lii dootul luy mën a nekk day ñëw jeex. parce que mhm. mënul continuer quoi il faut xam nga li luy continuer dañ koy xam. dara gënul metti nga dem kër nit. muy reer. mu leer na la yaw boo reeree moom du suur. nga obligé suur yow. Adji Sarr loolee dund. ak yeneen ak yeneen. maanaam da nga da nga wax bay ay ponceek ay fondeek te ñu jàpp ne Adji Sarr ñu ngi ko jox ay millions mu ngi ci kër gu baax ah traiteur sax lañ ko utel boo xam moo koy toggal est-ce que tey mun nañ ci gën a may leeral parce que wax ji tamit bu yàggee euh, kenn dootul xam kan mooy kan te yow jege nga Adji Sarr yooyu rek yaa ñu mën a gindi fu mu nekk nii. xam nga man li tax ma def audio bi dama sonde baloo sondage laa def. Mhm. mais am na ñu ma yónnee audio di ma saaga te yaw xam nga tudd ma turu kenn de. Mhm. kan moo la saaga ci audio bi. bi nga def non garaawul. Mhm. Mhm. naa génn audio yi. ñi la saaga mooy ñi nga xam ne ñu jàppale aji saar. waaw ñenn ci ñoom di ma saaga man. te yow yaw yàlla xam na ne ak sénégalais yi di tudd ma turu kenn. ku dul ministre de la femme. Mm-hmm. laa laa cité. Mm-hmm. bu dee ku may cité ne pour mu jàppale ko. mais li nga wax ci audio bi nag dafa garaaw de parce que da nga ne ci mbirum Adji Sarr bii nii ñu bëri ci lañ profité di ci am xaalis ñenn ñi créé si ay chaîne YouTube ñi créé ay site di liggéey ci kaw aji saar te waroon nañ ko mën a dimbali ci loolu donc tey ñu ko fi def man mun naa lim ay tur bu fekkee ne euh, du Bah jaxate parce que Bah moom mu ngi mu ngi mu ngi pas défendre Adji Sarr à cent pour cent mais mu ngi topp dossier bi ak projet Macky Sall yi euh, Kalifone Sall xaw na retiré wu Fatou Mata Ndiaye Fouta Tampi léeg-léeg mu génn léeg mu bàyyi Marie Trois Pommes mu ngi live euh, Françoise Hélène Gaye aussi mu ngi live donc ci ñii rek laa jàpp ñoo gën a jege Adji Sarr tey donc ci ñoo ñu ngay tànn kenn koo xamante ne mu ngi ci biir. xam ma waxuma ñi jege Adji Sarr ñi koy jàppale laa wax. Hmm. xam nga jege ak jàppale du benn mhm. mën ngaa jege di jàppale man ngaa sore di jàppale mhm. dama généraliser rek mhm. te daa am lu may wër te nag maa ngi koy bëgg a gis parce que mbir bu amee li Cheikh Yérim naan buy taw kenn du fabeere mbir bu amee nga am ciy dut ngay lancé ballon de so nga sonde nga xool bu amee retour rek di nga xam mbir mi fan la parce que am na ci dama njortu ne am na kilifa yoo xam ne ñu ngi koy dimbali xëy na ndimbal laa àggut. ma bëgg a xam xay na ma bëgg a xam fu mu tàggee. Hmm, ñoo xamante ne dañuy gis Abdou Nguer ñu gis nga kuy taxaw Adji Sarr li ko jàppale ñu xëpp ko ay millions ne ko pour xale bi waaw fekk xale bi moom yëgul parce que xale bi mënul génn di wax ne jotu moo la jot naa même boo ko woowoon tey hmm. ne ko ban problème am na man aw ma benn problème hmm. day day mën na souffrir ba dee te kenn du ko xam. deretu séeréer bi moo ko sonal merci beaucoup. Mhm. am na yoo xam ne du. te kon instant bu ngi souffrir mais mënu ko wax. nan la koy waxee. Mhm. man 2009 la sama rankoñ gëj wàcc man. Mhm. mais wàcc na démb. audio yi ku dégg ni ma ko defee xam ne ki koy def. am na lu nekk ci moom. moom la sax mais bu doon keneen dinaa wax lu raw loolu. mais dama bëgg ñëpp ñu dawal sérieux. xam ne seen rakk rek la ñenn ñi seen doom la. Mhm. man la maa moom maa fatt fii maa bloqué fii maa lii maa géré lii ma yooyu amul sens xam nga lan la. Mhm. nañ seet yàlla ci moom rek. Mhm. victime la dañ ko war a dimbali. parce que nit wax na ma ci audio loo xam ne maa ngi audio bi nit wax na ma boo xam ne. mais loolu bu man bu amoon. dama koy ba aji dama koy baax parce que damay xam ne. bu fekkoon dëgg la dëgg la dama koy baax. parce que ñu bi lan la maanaam dafa dafa dafa am ñoo xamante ne ñu ngi koy jàppalee yow loo yëgul yow mi ko jege wala lan la. non kenn ci ñoom. Mhm. ñooñu noonu seen biir du ma mhm. tudd tur. Mhm. Hmm. am na ku ma ci wax ci audio loo xam ne. su ma leeroon ne dëgg la aji ma koy baax. te damaa xam ne amut. wala yaakaar naa ni amut. te dinaa ko gëstu nag. mais njortu naa ne moom loolu wërta mën a nekk. muy diw damaa dajale ay million jox ko non. loolu dafa Adji loolu mënut ta ne warut a mën a ne. nga yow yow nga dem fekk Adji Sarr di di reere ay poñ seek ay ay ay ay ay mu xam sa. loolu warut a mën a ne. Mhm. wax ji jota raay de. comme neex na nga ne waaw day dem di wax li kii di nit buy dund jafe-jafe da koy wax. Mhm. feebar. Mhm. dañ koy weer. benn. saay saay dañ koy weer. jàngoroog saay-saay dañ ñooyam dañ leen di weer mhm. parce que lii nag dafa nuru ji koy caay-caay mhm. te munul jàll bu fekkee bu mhm. fekkee men ministre yeeg député yi ñooñu ne assemblée aji aji aji aji aji aji loolu ñu naan assemblée ko lëmbe fële fépp foo dem aji aji aji fekkee ñooñu noonu tudd aji aji dimbaliwuñ aji moomu nañ bàyyi aji kon mu dem na naqaram bu dee ñi koy dimbali ñu xool nag ña ñuy jox seen dimbali ñu ne ko ah sëñ bi ñu ñun ñu ngi dimbali soxna si waaye soxna si lii mhm. lii xaritam bi wax tamit mhm. lii lan la mu leer mhm. wax daa mat a leer man li wax làqatuuma de yow da xool daal fan laaxe bi tagee pour gars yi réagir voilà wala boog fa muy tagee comme tag na ba pare ñu bàyyi ko su ñëwatee ñu jàllale ko direct te victime boo ko fekkee di ko dimbali victime man nga ko jox xaalis mu gaspiller ko léegi mu jeex nit boo koy dimbali da xool li mu gën a bëgg li mu xam ne moom moo wan a ñàkk nga fexe ko seere loolu mooy la mhm. nit na am fu mu dëkk mhm. assuré ne fii maa fi dëkk mhm. duñ ma génne benn na am lu muy lekk am lu muy naan am lu mu def ci yaramam mais <laughs> aji mën na yor di mille francs fii bu et bu fekkente ne temps normal rek muy lekk di naan mais lan fan la jëm fu mu koy jënde fu jëm mën na koo yor ay fan bu fekkee mu ngi waaw mais boo ñëwee mënul dem fenn xam nga tey man bu ma ñëwee ni dama jàppale aji ñu jox ma benn trois millions ma ñëw jox aji un million te deux millions mhm. aji million day bari ci moom mhm. ce que sax mhm. réellement aji mës na téye million bu dajee ci loxo moom boppam kon ak li muy bëri loolu tamit est-ce que gëmuma ne mas na téye million ci loxoom bu mu moom te pourtant yi ay millions ngi millions ngi millions ñu ngi koy proposé pour mu génn ci lii dem wax déggoon fi mbirum quarante millions ba moo loolu sax tuuti la loolu weccet la ci lañ koy proposé. Mhm. man xam naa jigéen boo xam ne. Mhm. mu ngi toog ci ay million heure bi aji lay xaar mu ne waaw. génn naa ci pour mu jox ko génne ko ci. am na aussi ñu ñu dégg ne dañuy ñu ngi teg xaalis bu bëri lu toll ay cent millions pour am vidéo Ousmane Sonko ay kilifa yu nekk ci réew mais xam nga man lu ma jaaxal. Mhm. vidéo bi jaral na la quatre cent millions. mais ki téegal borom vidéo bi mënoo ci moom di millions. te vidéo boobu ngay laaj. Mm-hmm. mais kii toog. Mm-hmm. Mm-hmm. moo la mën a gën a téegalal ki téegal yu gaaw. mooy da ko yóbbu ci yoon wan la ne lii dama def. lii ak lii. ñu ji yow ko dugal ci kaso bi yow nga noppalu yow mi nga xam ne sa adversaire la yow noppalu nga. te sonnoo ci. loolu la. aji nii buñ ko mettre ci condition yu baax justice def liggéeyam Ousmane Sonko du ñibbi. buñ ko mettre ci ay conditions yu baax. waaw parce que xam nga mënul dem nooy demee procès am ay doute. ay xalaat mm-hmm. man maa ngi di am problème sa ginnaaw mënoo mm-hmm. boole tëgg tama ak di wokkatu mm-hmm. loolu la mais nag li man daal li sama li may wax man mooy bu fekkente ne nag ñi ngi koy jàppale ministre de la femme moom ma joxoj baaraamu tuuma xam ne moom moom laa joxoj baaraamu tuuma bu dee mu ngi koy jàppale jàppale mu ngi takk nga gën a réagir bu dee jàppale wu ko tamit sénégalais yëpp xam ne ministre de la femme mu ngi jàppale ñeneen bàyyi kii mhm. ndax man damaa xam te bu tudd tur jotee naa tudd tur mhm. suñ ca eggee mhm. dinaa ne ministre de la femme mu ngi jàppale diw te diw a gën a baax aji situation kon léegi un poids deux mesures yi pourquoi ñu ca àggee nag dinaa tudd tur man du ma du ma sos du ma su ma waxee boo ma indilee plainte du ma fa yendu parce que li may wax xam naa ko te du ma xam lépp wax lépp damay xam lépp wax tuuti d'accord kon da nga bëgg dëggal tey Gabriel doon wax ci benn plateau ne Adji Sarr mu nekk nii xel mi lépp nekk fa ba jàpp ne sax euh, ñu ngi naan est-ce que amul trouble maanaam dafa xaw a sax nekk di am ay dépression yi ndax tëju bi. non man ni ma déggee kàddu Gabriel li ma ko déggee mooy. Hmm. dafa bëgg ñu ko ko ko assister psychologiquement. maanaam hmm. di ko xool. ko hmm. saytu. ñun man man man mënu ma xam li ci aji mënu ma xam lu muy dund nii nii maanaam ci boppam. cerveau am nii mënu xam mais am na ñu ko yàlla may ñu xam dañ ko jàng. te loolu ministre de la mi ma ko war a wutal. koo xam ne day ñëw di xool kii. Mhm. ban problème la am di ko xam. Mhm. man ànd naa nit yóbbu ko hôpital. ñu mhm. ko fa ñuy faje dof yi. ni mu duggee dama ne ko ñii dañ laa yeb. fii lañ lay maa ngi gis ñuy jàppoo ay dugal ñuy mhm. kétti kétti ñu baal ma mhm. ma ne ko ñii dañ laa yàpp mais bi mu duggee ñu bindal ko ordonnance ba mu naan ordonnance mhm. ma gis ko bu tëdd di nelaw commencé lii laa ne non kii yàbbuñu ñi ko bindal xam nañ liñ def te pourtant maa ngi ñu ànd di teg suñuy affaire di kii ndekete ki ko xool xam na ni kii am na lu ne ci moom intérieurement am na lu des jeex na maanaam parce que ñuy rek summeeku voilà mais ñu ne ci télé yi naan aji wér na dara jotu ko dara nii est ce que ñoom xam nañ psychologiquement xam xam nañ man toog nañ ba xool ko ay mhm. médecin lañ wala mhm. parce que xam nga lu tax mhm. man ki feebar na sax laay gën gëm ko kine ne feebarut xam nga lu tax ku jógee ci viol ñu ñu terroriser la wan laay xetal nit ñi di la wër quatorze personnes dee ndax yow mais kooku buñ nee nañ xool bopp bi ne lu jaadu la if ah nañ waxante dëgg xool ndax mu ngi fi exactement jaadu la yow xam ne nit bu tëboon sa kër dee sa biir kër rek ni ngay ni ngay kii waxuma mhm. quatorze personnes dee mhm. ci loo xam ne ñëpp dañ naan yow la mhm. ñemeetoo génn dangay ngay làqatu boole ci di dund dund were yaan di lekk ay xuma xam sax ay sombi kooku jarul xool boppam bi ni ba xam lu ci ne gisa nit buy wax da ngay xam fi muy waxee nga déggee fa bañ a déggee sens bu bon bi quoi nga dégg ci wax ji wax jële ko déggin bu rafet chaque jour nit wax penalty ci aji bari ñu koy jàppale ma xam ko mhm. ma xam ne li mu wax penalty la mhm. mais su ma defee sorti dama koy jéem a rafetal defaraat ko tant que nit génnul attaqué Adji Sarr directement mhm. du ma la man boo ma attaqué ma ne la nee naa ay audio gi fii ay nit di ma saaga ndey ci li ma def saaga sama ndey ci audio bi ci li ma wax te tudduma kenn mais dama toog rek aju moom moo tax ma def su ma nekkee di tontoon teg kooku di close day te man sama baat bëgg naa buy jóg. Mhm. muy jóg ci lu rafet. Mhm. Ousmane Sonko daal laa séqut ak moom teraanga wala ay rafetal. Mhm. mais la kaa ñi ne ci àjji di rafetal li may def nag damaa dem ba sës. gis loo xam ne waruma ko woon a gis. moo tax def audio moo tax nag ma def audio bi pour leeral. te kenn du weddi tamit aji am na ñoo xam ne combat bi wax dëgg yàlla ci lañ ci lañ ci lañ leen xam. dañ ci man ci lañ ma xam. Mhm. mais kenn xame lu ma yokkute heure bi. Mhm. kenn mënul wax Abdou bi ñu xam nii la meloon bi ñu ko fii mhm. léegi nii la egg. amut. su ma fi yokkee de lii la te ko jënd. xam nga lii du dara. jeex na. mais am na ñoo xam ne moom nag bu ñu commencé fañ jóge woon ba fañ egg. vraiment. mais jotoo xaalis si diggante am na yokkute. jotoo xaalis si diggante bi ci bi nga commencé di jàppale Adji ba léegi amul kenn ku la mos a woon na la gis naa sa taxawaay sonn nga ci xaaral ma jox la xaalis pour nga gën a mën a xeex. non ankay. Mhm. man nit des fois damay jóg war a dem émission. Mhm. du ma affaire yi kii. Mhm. nit woo ma. wala ma ne ah invité mais munu maa dem. lu tax dem moom ma ne la man maa ngi nii ci loxo yàlla. nga ne ma am demal def émission. ma dem def. des fois nit. woo ma ne dafa bëgg a dimbali aji wala man ma woo nit ne ko dimbalil ma sama. Mhm. aji mi. Mhm. pourtant da koy def. Mhm. mais man lépp lu jaar ci man jëm ci aji day am trace. ok lu leer daal. damay dem ba ci borom. ma ko allu diw. waxal ak diw. mu mu leer. ma dégagé wu ma dem sama yoon ëllëg laay bañ. parce que lii laay bañ lii keneen jugoon def benn audio. Mhm. mu laal ma man. faaw ma jug di leeral. Mhm. bala maa leeral nag. Mhm. fekk yor naa. moo tax ma ne woon képp ku koy dimbali. jugal nga jëndal ko lim soxla nga jox ko ko lépp lépp lépp lépp mu mu xam ne moom dina lekk dina naan. parce que lekk naan mooy priorité lekk naan ba suur mooy priorité. ak tëdd fu baax. su ko amee reposé wu. xalaatul. Ousmane Sonko du mucc. d'accord mais ay Mamour Diallo yi ñu ci tudd yëpp aussi parce que euh, amoon audio sax bu fi génnoon ñu ne diggante moom ak Adji Sarr waxtaanu mënuñu la génne réew mi dañuy bàyyi ba nangam ñu doog a def nangam ñooñu aussi dañ jàppoon ne ñoom ñoo koy gérer ñoo ko jëlal fu dëkk di fay appartement bi di ko jox ravitaillement ñoom aussi boobu ba léegi euh, mën nañ jàpp ne kon defuñu ci dara à part coow lu njëkk li. man dafa am ku wax ne moom mooy fay appartement bi maa ngi gëstu loolu. ku la wooyee wax la ko. waaw ne ma. moom mi ma woo ku jigéen ki ma mm-hmm. woo. Mm-hmm. Mm-hmm. nee na moom mooy fay appartement bi moo koy fay. te loolu nag laa war a xam dëgg la wala du dëgg. ci ñuy jàppale Adji Sarr. waaw bi may ñëw ci yoon bi jot naa information boobu. war naa xam loolu dëgg la wala du dëgg. bu fekkee moo koy fay. ci propre moyen ma xam bu dee ay nit a koy jox muy fay. mais ma xam. d'accord ñu jeexal ci sorti Imam Dramé bi ci seen. Euh, doomu daara yi dajaloo woon doon créer benn euh, association xaw ma mouvement lañ ko mën a tuddee mu wax ba wax benn wax boo xam ne ñoo dagg sax après vidéo bi sànni ko ci internet bi muy wax ne affaire association wala mouvement bi du affaire tarixa te ku mu ne sa nga génn sa tarixa sax ñoo bokk fii nii loolu aussi est-ce que tey kàddu yu mën a rafetlu la. association wuyu la association bandi. Mm-hmm. buñ koy tuddee ay daara. Mm-hmm. n'est-ce pas Pastef la ñuy jàppale. Mhm. Pastef leader ba luñ ko jiiñ yàqtaan. Mhm. ñoom doomu daara yooyu nañ ko wax li ci yàqtaan. luñ mhm. ko jiiñ. xanaa ñoom jàngaluñ ko laa taqara buusi na. jàngaluñ ko fenn baaxut. loolu lañ ko war a jàngal kon. dañoo waroon a rey ñoo woo ko mu ñëw. ñu ne ko ñun doomu daara yi dajaloo. ñoo lay xamal ne wax lu dul dëgg baaxut. bàyyi say jeeg dem beneen jeeg di la ndàmp baaxut. ñun doomu daara yi loolu la. soppit sa jikko ji. te Pastef hmm. dafa mel ne ab tarixa la léegi. loolu nga gis li ma gis ci ah Ngagne Demba nee naa seen article cinq nee na daal. Ngagne Demba li mu wax noonu. jaamu yàlla jaamu xam nga xam nga if lu mu dee dee nga français tuuti. Hmm. ki wax ba ne point final. Hmm. lu ci topp. mais gaa yi dañoo dagg nag loolu moom du ma ci ànd ak yaa gis nga. gars yi dañoo dagg benn parti. bëgg ko jaxase. as askan bi. Hmm. mais la mu wax dafa eggali audio bi. waaw taxawal maanaam jaamu nit ak nit loolu la wax. waaw ba ci sax suñu institution yi. waaw léegi waxoon rek jaamu nit ak nit xam mu yokk ko ci. Mhm. am na ku toog fële def ko signe. Mhm. ngañ bi mu waxee pare gisoo ki mu siggi xool ko mhm. communication day wax. bi mu waxee ba ne point final. Yves nag loo jàngat di jàngat xam nga ne point final mooy wax ji jeex. yow la nga jàngat ci loolu. <laughs> tarixa lañ yor. ñoom bu ñëwee toog. màngal ya gàmm yi comme tu xaw ma tumbaktu lañ koy wax xaw ma Mali niñ mm. fay def noonu mm. loolu lañ fi bëgg indi ah màngal ya gàmm yi barab yi yëpp nañ ko daaneel mosquée yi na yu amatul ay ay barabu sëñ bi barabu sëñ diw barabu sëñ diw raser leen yëpp mm-hmm. mais gis nañ ne aussi fi nga xamante ne fa la jokk muy Touba ay surtout Serigne Touba di ko défendre moom di confirmer Ousmane Sonko di confirmer ne kii mm. euh, murit la taalibe la te Touba am na fi ñu ko teg parce que dama jóge ci affaire Imam Dramé li nga wax ba ne tarixa la moo tax mu indi affaire tarixa bi Ousmane Sonko gisuma nit ku baax ku mu àndal nit ku baax ku normal ku mu àndal ko ku mhm. koo xam ne mu ngi topp Ousmane Sonko man gisuma ko mhm. foofu daal laa mën yàpp mhm. Touba ñi ma fa xam ni normal njàngaleem sëñ Touba ak li li sëñ Touba digle ñu ne ca topp ñu Ousmane Sonko di yàppar yàppar d'accord Abdou Nguer ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay gërëm di gërëm ñuy seetaan ñëpp di wax ne. Mhm. defar rek moo ñu tax a jóg. Mhm. yàq taxu ñoo jóg de. Mhm. moo nag nen moom. doo ko jariñoo mu te tojuloo ko. loolu rek moo ñu tax a jóg. jaajëf man maa ngi leen di fay di leen di kontaan ci dalal bi nga ma dalal ndax yow danga nekk nit koo xam nit ku baax. moo tax damay sawar sax yu say mbir. waaw di la ziar di ziar sa soxna Mariam muy nit baax moom tamit. di nuyu tamit waa Sénégal ñi seetaan. jërëjëf tey dañu ñëwaat tuuti ci actualité rawatina sa single bi nga xamante ne euh, génne nga ko jagleel ko Ousmane Sonko. Mm-hmm. muy single boo xamante ne xëy na bett na ñenn ñi waaye ñi la xam mun na leen bañ a bett ah, ndax ku wax Manel Diop wax Alaaji Rafet ndax yéen a bokk ndey ak baay te yow ngay artiste dans la vrai sens du terme mais bu ñu ñëwaatee un ci actualité bi li nga xamante ne xew na ci réew mi ñu gis nga def benn sortie dem ba wax ne euh, ñu ci bëri sax nangootuñ dina jox seen ay publicité ndax Sonko. lan moo indi loolu pour yow. waaw non li ko indi mooy xëy na wax naa ko ñu bëri ñu fi may waxee. Mhm. parce que euh, du man rek. Mhm. parce que waaw du man rek parce que xam nga ni képp koo xam ni yaa ngi jàppale Ousmane Sonko ci moment bi ñu toll. Mhm. lu ñu mën def xeex la rek dañ koy def. waaw foofu laa waxee rek. te ñun xaalis mënuñoo jënd. waaw parce que ñun bi ñuy ànd ak Ousmane Sonko du question xaalis bi nañu gis ci moom. mais dañ koo bëgg rek. Euh, te yàlla tax. yàlla boolu joŋ moom. looloo ñuy mm. ànd ak moom mm. waaw parce que yàlla nag moo yor doomu aadama aussi moo yor dundi doomu aadama kon nag ñun fi ñu taxaw nañu taxaw dañuy xeex nañuy xeex waaw te dara taxul nag jëmm suñu borom bi mm. ce que ak fii réew toll nii ak euh, li ñu wax ne Ousmane Sonko gars yi euh, dañu koy xeex may ñu ko jàmm mi nga ji di ko jàppale amoon risque boobu noonu xalaatu woon ne risque yi mun na la ci fekk waaw non mën na ma see fekk mais xam nga dëgg moom dëgg boo gis rek xëy na dina am ay risques yu si nekk. Mhm. mais fenn rek laa xam ni boo ko xalaatee rek day gën a xuus. Mhm. mooy suñu borom. Mhm. waaw ndax lépp loo sonn si suñu borom muy dëgg gi rek. ëllëg suñu borom dina la ko fay. looloo tax man du ma tiit. waaw tey lépp lu ma si mën a góobe mën naa ko gar parce que dama xam ne àddina amul solo te lépp loo gis day jeex. waaw chaque jour aussi may xalaat sama bàmmeel. xam ne li mu dund dootuma ko dundati. Mhm. kon nag li ma war rek mooy dox ci dëgg seet fii dëgg féete. Mhm. ma ànd ak dëgg googu. jàpp nga ne Ousmane Sonko moo nekk ci dëgg. waaw Ousmane Sonko dafa nekk ci dëgg. Mhm. te du ma leer la quoi. te aussi leer na waa Sénégal. parce que Ousmane Sonko bu nekkoon ci dëgg heure bi kenn waxatu ko. ndax yàlla du faral kuy tooñ. mais dafa nekk nit koo xam ne nit ku jub. nit ku sell sell nag ñëpp mën nañ koo def mm-hmm. waaw yaa xam ne li ngay def ba sell mm-hmm. waaye moom li mu def ba sell mooy soxlul alalu jaamu dëggu mm-hmm. nekk yéene doomu aadama yi lu baax jiital ci doomu aadama yi société ak boppam looloo tax rek muy ku sell lan moo indi pour yow coow li nga xamante ne amoon na fële ca Mbàkke ba ñu bëri génn di ci di ci ñaawlu jëfin bi nga xamante ne ñii ànd ak Ousmane Sonko jëf nañ ko ci biir Mbàkke ba yenn sax sët yi di ko supporté ci loolu ne ñoom dañ nekkoon seen ay droit waaw noo xam nga Touba moom sëñ bi moo ko aaral boppam mhm. te Touba moom ànduma si benn yoon ñuy def loo xam ne du yoon mhm. ndax borom dëkk ba ku sell la mhm. te lépp lu mu sonn doomu aadama yi ñoo tax waaye nag dafa doon man de gisuma sa xëy na nekku ci biir Touba waaw te li indi problème bépp mooy xëy na lu ñu war a autoriser te autoriser wuñ ko. Mhm. tey bu ñu ko autoriser woon dara du ci am problème. Mhm. ñu ñëw wax li ñuy wax demaat seen yoon. Mhm. nettoyer dem kon yaakaar naa coow li am yëpp du am. waaw loolu nag laa ci gën a laa ci gën a remarqué daal. ñàkk autorisation bi nga xam ne. moo ko indi moo indi problème mais est-ce tey bu ñu nekkoon ci yoon duñ leen leen ko autoriser parce que dañ ne autorisation bi dafa manqué woon benn signature moo tax ci autorisation. waaw moom. boo nekkul ci beneen côté bi rek mu mm-hmm. affaire foog mu jafe quoi mm-hmm. xam nga nguur moom yàllaa ko dooleel mm-hmm. waaw yàlla moo ko dooleel xeexe nguur xaw naa metti mais ñoom seen bopp rek ñoo war a yërëm ñi nga xam ni ñoo leen féete suuf xam nga xam ni ñoom ñun ñoo leen fal. Mhm. parce que tey euh, li tax Macky Sall toog. Mhm. bokk naa ci ñi nga xam ne sànni naa ko carte. kon mhm. nag sax ñu nay geesu askan wi. di tey ba muy xeex ñu ñëpp ko jàppale ànd ak moom ci xeex bi. kon nag tey bu mu ñu teg fitna wala muy teg coono ko parce que ñun bàyyiwuñu ko. mooy suñu président. mais na dawal yërmande quoi ba nga xam ne Sénégal jàmm dina fi am jàmm dina dël ci Sénégal. loolu rek moo tax aussi. am nga. ñu sonn dañu gis doomu kilifa gi doomu sëñ Mountakha Bachir di xalif général bu murit yi euh, génn di lu taxawaay Ousmane Sonko dañu gis doomu kilifa gi ci moom taxawu di lu taxawaayam biir Touba. waaw non xam nga nit ku nekk ak sa gis-gis rek. ah man dafa am koo xam bugguma see xuus. Mm-hmm. trop. Mm-hmm. parce que ñoom suñuy kilifa nañu. waaw te Ousmane Sonko moom man damay wax chaque jour dama koy bàyyi yàlla rek. waaw moom na xëy na kilifa Ousmane Sonko la. xëy na li mu gis ci moom ba koy critique xëy na moom la moom la ko gis. Mhm. waaye ñun li ñu gis ci Ousmane Sonko. mooy mhm. ku baax ku am mhm. yar. ku yaru wax dëgg yàlla ku te du taalibe tey. Ousmane Sonko taalibe bu yàgg la. waaw bu question day nekk taalibe di ko fësal ak di tiitaru. waaye moom li mu gëm gëm na ko. kon nag euh, moom sëñ bi lu mu mën a wax rek. Mhm. Euh, dañu xam ni rek surtout sëñ Tuubaa la. Mhm. waaw surtout sëñ Tuubaa duñ mhm. ko siy topp. waaye daal ñu koy ñaan rek. moom mi nga xam ne moom tamit euh, maamam dafa liggéey te liggéey bépp si askan bi la. moom tamit mu kii yaat daal gën a sànni ñaan rek xam ni ñëpp moo leen yilifee parce que wet gu nekk ay taalibeet ñu nga fa. waaw waaw mu gën a dolli ñaan gi rek. waaw waaw. d'accord am na aussi beneen affaire bu génn ci diggante bi. beneen xale bu jigéen bu génn di wax waxu massage ne moom mës na massé Ousmane Sonko bi ngeen ko gisee est-ce que tiitu leen. non kooku bi ma ko gisee man xam nga man nit booy wax rek bu ma la gisee damay xam ne kii li ngay wax dëgg la wala du dëgg. Mhm. xam nga ni xale yi lay doo bëgg a mhm. moo xam nit boo ko moo xam daal lu ci jublu. Mhm. waaye daal moom lu muy wax moom. man tey ku ma tegoon loo mën a tegal dinaa waat nii. li muy wax moom ko moom kan ko sant ak fan la jógee mhm. waaye li muy wax dafa teguwul parce que wax bu tegu nit bu waxee rek mhm. da xam li muy wax tegu na mhm. loolu la ko Ousmane Sonko ne nekk di nit koo xam ne ndeysaan ku bëgg a yéeg wala ku bëgg dégg Ousmane Sonko na yàlla moo ko nattoo mais nag euh, jàpp ne dafa am ñu nekk ci ginnaaw ñu sant ko ah, mu def loolu mais mën na nekk quoi parce que am na wax day am fu mu kii quoi fu mu fu mu basé wu parce que ñun defuñu nit bu waxee rek dañuy xam ci ban genre la. Mhm. ak lan moo ko tax a jóg. Mhm. waaw gars yi nag yaakaar duñ sonn mukk. fexe mhm. bu ne ñu koy def chaque jour. waaye bu ko doon ñoom ñu xalaat seen digganteeg suñu borom. Ousmane Sonko ñu may ko jàmm. parce que seen mbokk ndaw nawle la. seen seen frère la seen lépp la. waaw ñu may ko jàmm ñu tal Sénégal gi seet ñu muy xoole ko. moo ëpp solo daal yii ñuy def parce que amul njëriñ. amul njëriñ parce que jàpp nga ne Ousmane Sonko dina bokk ci élection deux mille vingt quatre yi. ak coow li ko topp yëpp rawatina mbirum Mame Mbaye Niang. waaw mais coow lu ko mën a topp tamit du loo xam ne mën na ko téye mu dem euh, élection parce que xam nañ li fi nekk yëpp hmm. ay pour mu bañ dem élection rek hmm. moo tax xam nga hmm. man am naa si yaakaar sama président. am naa si yaakaar sax bi may dundee yaakaar. ni dina nekk président Sénégal parce que. yàlla moom la àndal mhm. yàlla ah, moom la àndal mhm. moo tax chaque jour sama xel day dal ci moom quoi mhm. wolof la dañuy yéene néeg la te borom a cay fanaan nit ki sa wóolu la suba da nga yeewu waaw yàlla rek a xam waaw waaye daal dañ ko rafetal daal jàpp nga ne kon dina bokk ah day bokk hmm, dara mënu ko empêcher mu bokk non dara mënu ko empêcher bu ñu demee procès ñu def ko sursis nag non mais mënut a nekk xam nga procès bu da ngay def dañuy seet loo xam ni xëy na mën na la see daan mais am na loo xam mënuñu la see daan parce que loo Euh, ñi ko wax du moom rek mhm. bëri na mhm. kon nag nañ dawal yërmande mhm. xoolaat seen bopp xam nga jéem a seet daal ñu Sénégal di changé est-ce que tamit ci ay wax non juumul sax juumul juumul xëy na moom la mu gis la ñëpp gis rek parce que kii bi bi ko gisee ñëpp dañuy fàng ñu gis ko ci internet bi xam nga ñëpp gis ko. Mhm. foofu la basé wala bu wax ko. mais warul basé wu foofu Ousmane Sonko. kilifa la waaw non bu ñuy condamné xam nga fu fu ñuy mhm. ba. Mhm. kooku la ñu war a njëkk a mais moom dafa liiraat rek. kon nag yaakaar naa lii amul ci benn problème quoi. franchement dañ tawal yërmande xam ni bi ñuy jot ñoom nguur gi. dañ leen ko yombalal. parce que tey bu ngeen defoon yenn yi duñ jot nguur gi. te àddina li may wax rek àddina amul solo. loo gis day jeex. nguuru yàlla rek a dul jeex. te nit ku nekk war ngaa xalaat sa premier bàmmeel man mhm. foofu rek laa teg yëf yi mhm. fekkee nag moo ëpp nga nit fii dóor ko fii mhm. yàllaa ngi fi te yàggatul dara ñëppay dee ke kenn du dund lu nga dundoon ci ñoom ñëpp nag kon nag dañuy a mbir mi ñu jeexal ak sa single bu bees bi Sonko focus 2024. waaw waaw Sonko bi man dama ci am yéene. parce que li ma gën a inspiré. mooy defoon na fi benn single boo xam ne dañ ko doon dawal benn woykat bu mag. Euh, ñu reprendre ko. mais Pape Djibi Ba. kooku super jamono kooku nekkoon. Ah. super jamono <laughs> day am bëgg ma tudd turam. xam nga génn moom tamit démentir. <laughs> Uh-huh. te am na ñu bëri ñoo xam ni ñu ngi reprendre seen morceau. Uh-huh. te bu ko keneen reprendre doon. Uh-huh. te tudd ci Ousmane Sonko. waaw tey du génn. Uh-huh. mais liñ ci tudd Ousmane Sonko moo tax mu génn. mu ñaaw trop nag. foofu nag wax dëgg yàlla am naa lu ma naqari trop. ci liñ ci liñ ko def. waaw loolu moo ma inspiré nag. ma ni dinaa def affaire boo xam ni. naa si bëgg la ñi nga xam mooy patriote bi war ni aar bi nag fépp la. xam nga gis gis nañu waykat yi amul kenn ku ñeme wayte Ousmane Sonko. ak li waykat am ci Sénégal yëpp. kenn sañu koo way mais kenn ñemewu ko parce que ñàkk gëm suñu borom la uh-huh. yàlla moo yor mm-hmm. yàlla nag nga yor kër joru uh-huh. yàlla tey mën naa ànd ak Ousmane Sonko wala seentuma si dara mm-hmm. ak sama ngoor man mm-hmm. naa ci am ngërëm suñu borom xam ne alaaji mi ka sama jaam la ku tekkiwul dara la waaye ba dëgg ñëwee lu ko neexal lu ko naqari yëpp da koo ci ànd ak dëgg ga mhm. xam nga yàlla mu ngi fi mhm. kon nag nañu xoolaat suñu bopp intérêt dëgg la parce mhm. fii yenn saa nga gis koo xam da lay woo dëgg la tey tey bu ma ñàkkoon ngor kenn waxatu ko ba billaahi nga xam ñu lay woo ci suuf bon ne la bàyyil sonko ñëw ci ñun barke rasulullah dagal la xaalis ak oto bon loolu barke billahi wallahi wallahi mm-hmm. barke rasulullah nee na yow looy toppee waa ji am na loo xam boo koy wax mm. nit ñi day dafa lenn la da ngaa bëgg bës quoi barke man dafa am loo ko jomm am mm-hmm. nag Sonko ba ñëpp xam ma Sonko mm-hmm. xaalis tax ma ba ko foofu na lay xoole doomu aadama ñaata lañ la proposé ak lan lañ la non non garaawul ah non non <laughs> bi lay garaawul proposé wuñ la ay cinquante millions non non garaawul garaawul garaawul garaawul waaw ah ñu bàyyi loolu te àddina ñu la ko la wala. ku jege Macky Sall non non nañ ma billahi barki sëñ Touba wallahi wa taalahi. ba ñu uh-huh. tan uh-huh. billahi du caaxaan. Uh-huh. mais Ousmane Sonko dañ li tax ma jàpp ko. kooku da ngay dem laaj ko Malick du caaxaan. moom fekkee na ko. dama laaj ko rek. Ousmane Sonko li tax jàpp ko mhm. moo ko bay boppam mhm. parce que dama ko fréquenté muy nit ku baax nit mhm. ku simple nit ku yiw te dafa am loo xam ne moo gën a riche xaalis mooy baax oyof simple yéene nit ñi lu baax nga xam ni kii li muy dox yëpp si dëgg la ko teg ak jub am na yoo xam ne dañoo wax ci moom waxati waxati waxati dañuy dem ba dootuñu sa bëgg a waxati quoi parce que lu ñuy wax rek dañuy defal ni dañu ko koy kii wala dañu koy yéegal ay mhm. niveau moom niveau moo ko yéegalal boppam mhm. te moom chaque jour niveau da koo teg ci digganteem ak digganteem ak boroomam mhm. moom foofu la toll wallahi du taa barki am na loolu amul solo daal d'accord single bi jàpp nga ne dina dox ak fi réew mi toll est-ce danañ ko ñëw man moom dinaa ko teg. moom laay ubbee sa émission tey. waaw waaw non yow. yow moom bi moom yow ñëpp meloon ni yow. Yves wallahi jayu ma la de. Mhm. mais nga nekk nit koo xam ne nit ku jub nga. Mhm. nit ku mhm. koo xam ne doo dépassé nit. nit koo gis jox ko cëram. Mhm. barke rasulullah du caaxaan. Mhm. Mhm. te dama koy wax foo nekkul sax. te ñi koy dégg xam na xam na li man li may wax fetuma ko. barke sëñ Tuubaa. mais ku ko tegul. sa affaire man am na foo xam ne sax du ma leen ko yónnee. na ma du ma sonal sama te ñoom bu ñu ko tegee suba ñu dee. waay <laughs> ah mais dëgg la. Uh-huh. bu ko tegee suba ñu dee de. suba musiba bu bëri dal na leen. parce que dafa am ñoo xam ne yaa. si falaa falaa ci biir. Mhm. def ay jeu. ok di ko wane bëgg naa la. di ko mhm. yooyu te ñun mhm. du ñuy ñun nit bu xefee sax xam ne tax mu xef. barki sëñ Tuubaa billaahi. te moom tamit noonu la ko yàlla dafay. xam na ko nit ku ñëw am na nu muy ànd ak yow. mais xam na la. xam nga noonu la ko yàlla bindee quoi. kon nag lépp day jeex nguuru suñu borom rek moo fi moo moo ko. d' accord dafa dafa mel ni tey euh, diggante Macky Sall ak Doudou Ndiaye Mbengue. ci 2009 bi ko kenn sañu lay way moom moo porté volontaire way ko pare jël ci risque bu ne nag te dégg na ci lu ne. daa mel ni même chose nga def yow. waaw mais xam nga xëy na maag du Ndiaye Mbengue xëy na bokk nañu bokk yu. Mhm. xam nga man chaque jour lépp lu may def. Mhm. dama si jiital suñu borom. ok damay jiital suñu borom. ak mhm. nit ki baax gi ma won ma delloo ko ko. man Ousmane Sonko bu nekkoon président soxla koo gis. barke rasulaay mhm. nit nag bala nga xam ne moo gore mu mhm. toog ba li mu doon wut am ko mhm. ca lay xamee ay nitam barke rasulaay xam ne lu ma ko bëgg mu euh, li nga xam ni dig na ko Sénégalais yi wala ab projet yi mu jàll ñëpp xam ne kii li mu doon woote noonu la waaw mbaa yooyu dañ may kaay mbaa yow waa affaire yee may daal waaye affaire bàyyi ma nekk waaw loolu nga am solo. d'accord léegi ñu jeexal euh, single bi génn na euh, est-ce que yónnee nga ko Sonko ba mu dégg ko wala ku ko jege. waaw waaw yónnee naa ko nag soxnaam soxna Anna. nit bu ok yiw. Mhm. xam naa moom ku déglu ab ibaadu mhm. mhm. pour borom kër gi jot ko. waaw borom kër gi nee naa leen dagan na. dañ ko def morsa morsa campagne xanaa. waaw ah waaw na kat. mën na kat. d'accord euh, ñu bàyyi la nga nga tàggatoo. ah clip bi aussi xam naa du yàgg di waaw waaw clip bi du yàgg maa ngi ci nag maa ngi xam nga rek comme que jamono ji moom dafa doy waar mm-hmm. te alaaji moom ku wax ndax bu mm-hmm. waxee xam nga rek di kii mm-hmm. yóbbu ko fenn maa ngi ci daal ni ma def ba génn kii bi daal maa ngi ci daal yàlla baax na nag yàlla baax yàlla dina defal lépp waa di ñaan nag Sénégal yàlla wàcc fi jàmm amin jàmm ji ñu yaakaar yàlla wàcc ko fi amin xam nga mag Sall suñu président waaw bu ñu koy jox réew mi dañ koy jox ak xol bu sedd booteel mhm. ko gunge ko mhm. te doon ñu ñaane yàlla tamit gunge waat ko mhm. incha allah mu dem France walla mu toog fii moo xam daal xam jox keneen jël quoi lépp ci jàmm di ko wax nag Sonko du noonam frère la léppam la parce que àddina moom waxtaan a nga am solo waaw mu xam ni tamit lii day jeex mhm. ana ya fa nekkoon mhm. ñoom Lamine Gueye mhm. ñoom Cheikh Anta Diop ñoom ñëpp dem nañu kon nag na waxtaana ak xelam am ni nguur jaru yenn mu bàyyi Sonko présenté wu xam nga jàmm ni ñooy ku mën sa moroom dóor nag waaw parce que yàlla mooy joxe nguur waaye daal jàmm daal laa bëgg Sénégal daal jërëjëf Alaaji Rafet yow tamit di la gërëm